ñu duppee leeral euh, s'informer à temps réel 8 euh, heures jot na ba toftal euh, juróomi simili ñu ànd ak waa yi xool li nga xam ne moom moo gën a fës ci ci ci yenn kaay yi xanaa bu ngeen ñu mën a tegal bés bi le jour ngeen tegal ñu ko donc yenn yi nag xam ngeen ni weekend bi sànq Cheikh mi ngi koy wax li ci gën a fës ku ne xam na ni Idrissa Seck def na sorti génn le président Macky tamit ak waxtaan boo xam ni sekk na ko ak ñenn ci suñu ay naataango solo euh, donc euh, mu nekk nag ndéwanal mën nañu wax loolu bu mat ndéwanal lañu la ñu joxe euh, ñoom ñaax enquête nag lañ ma andil Mansour mu nekk ñu titré un divorce à l'amiable mu mel ni suñu daal ñaari ñi nga xam ni kii di njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck fës na lool ci semaine bi ak sortie yi ñu def. en tout cas li ñuy def. Mhm. bu fekkee nawloo nañu askan wi saf na lool comédie. <laughs> waaw saf na loolu comédie bu fekkee jàpp nañu ni aussi nit ñi ñoo ngi xalaat. Mm-hmm. après élection présidentielle mille 2019 yi. Mm-hmm. Idrissa Seck dafa forcer boppam dafa forcer boppam je dis bien. Mm-hmm. chef de l'opposition après proposition Macky Sall parce que existe muy chef de l'opposition daf ko forcer boppam bi ñu nekkee ci di ko débattre mu ni moom sax garaawul bàyyi na loolu lépp soppi boppam nga seey ci biir soow eh, mburu bu seey ci soow kenn du ko seppiwaat de dañ koy boole dañ koy boole tuur mbaa ñu boole ko naan comme ñoom moom nag bi mu soppee bopp mburu seey ci soow ça fait deux ans ba léegi amaguñu suukar bu ñu ko sucré pour mën koo naan dañ leen di boole tuur caaxaan baaxul sénégalais am nañu xel euh, xewlal scénario bi ñu joué ci benn weer bi c'est un film Macky dafa dem def conseil benn benn meeting benn benn benn caravane la di jëkk a def la veille à Thiès jóge ci caravane bi nga xam ni dafa fees dell Thiès euh, dam laa fi képp ki politique Thiès am ñu mu permettre ci biir ay njabootam ñu ñu ñu funki ñu gonfler biir Thiès am ñu mu suulaat biir Thiès parce que boo fàttalikoo ci histoire APR mosoo tudd Thiès te boole wu ci ay Augustin Tine ay nangam nangam dafa am yenn leader yu suulu définitivement am yu mu génnewaat comme directeur AIBD bi yooyu yëpp ay jeu politique la d'accord yooyu amul solo euh, le lendemain mu def conseil inter conseil euh, des ministres Idrissa Seck mi nga xam ni nee na Macky Sall amul xam-xam nee na Macky Sall vision jëm ñaajoleem nee na euh, Macky Sall du naatal Sénégal yàq ko lu nekk moo taxaw ci kanamu askan wi boo xam sa vision passé wul jëm ñaaju génn naa ci baat bu muy utiliser muy xannaasi naasi euh, ministre xul euh, awans boobu naas maliki naas ilahi naas min charri waswaasi xannaas waswaasil xannaas mu ngi commencé ci nit kuy laaj askan wi seen moomeel askan wi xamuñu tànk bi ngay feccee bu fekkee arab lay làkk waswaasil xannaas mooy kii sikki sàkkaloo nit ci kii fan la jëm daf ci bi mu demee ci Ousmane Sonko daf ko utiliser ci discours am bi muy wax ak taskat waxuma point de presse bi de ci bi mu jullee ba noppi je discours Idrissa Seck bi mu jullee ba noppi est-ce que Idi euh, yàpp nañu ko laataa mu doon dem di julli ci ci nawloo Sénégal yi war a déglu discours am c'est-à-dire que sénégalais dafa mun a fen sénégalais dafa mun a sos sénégalais dafa mën a manigance mais benn kilifa du traiter noonu un peuple. Hmm. moo tax man est-ce que yëpp nañ ko laataa mu doon dem. donc mu joué jeu yi ngand yooyu yëpp mu ni Macky Sall dama juumoon sa vision passé na jëm ñaajo léegi passé na sax Sénégal passé na Afrique dem na sax ci àdduna bi yëpp. quelques jour après mu dem États-Unis rencontré fa ay doomu Sénégal yu bëri émotion commencé dugg mu déclaré candidature am foofu mook Yankhoba déggoo wuñu Yankhoba moom maintenir candidature Macky la mu ñëw coow leen teg ñu joué seen benn jeu mu génnee ko ci numéro 2 parti bi kii dem jébbulu waat ni ko post bi mu amoon sax jébbal naa la sax dañuy théâtre <laughs> delloon naa la poste bi ma joxoon léegi seetal ko la neex ci biir parti bi nga jox ko ko man toujours man sa sa taalibe rek lay nekk ba tey ci film bi de fàtte nañu ni jamono ju Sénégal ñu ngi bàyyi xel ci annonce Macky Sall ci amnistie xalifa sàll ak Karim Wade loolu bokk nañ ci li gën a traumatiser Idi bu fekkee dañu bëgg caxteg libéral fii comme ni ko wadd annoncé woon pendant cinquante ans ñu foog nit ñi amuñu xel bu ñuy xalaate après moog yànqoo ba mu defal ko ay ñaanam yooyu ñaan ci taatu garab gi comme comme jamonoy village yi doom gi tàggu bàyyi ñu xëppal ko ndox ci ponu oto bi <laughs> di théâtre quoi film quoi <laughs> euh, Idrissa Seck dafa nekk situation bi ñu toll daf ci nekk victime deux fois ci wàll politique dafa jëkk dugg ci gouvernement bi Macky Sall génn euh, ay ministre ni ko du ñu la topp um Oumar Gueye lànk mu xaw a neexoowaat fippuwaat Omar Sarr bu Diourbel ni ko du ma la topp daf ci nekk victime te dafay tiitaat nekkaat ci victime moo tax mu teel a annoncé vendredi xaw ma samedi ñu di sama ay ministre daal ñu jébbale seen ay lettre de démission idi moom xam na calcul politique gu Sénégal ci week bi lu nekk xaj na fi li mu foogee ne moom démission am ci conseil économique social et environnemental noonu la ni bosam yombee noonu la bu yàqoo baak Sala Diop di yombee mun naa am mun na am mais en tout nekk na ci victime ba tàyyi te yàgg na def calcul bu mel nii mu nax ko mais jamono jooju ñuy def seen calcul yooyu yëpp idi taxaw ni Sénégalais yëpp Macky Sall baax na moom laa bëgg a àndal liggéey mais bu xëyaatee moom ni fan la jëm ban tànk la cest à idi dañu bëgg a xam fan la jëm daf bëgg a nekk candidat pour jiite Sall nekk juróomeelu président de la République bu Sénégal Idi lan la doon cherché ci bi mu dem kër Ousmane Sonko bi mu tiitee waswaasi xannaas yi topp ko di dawal moto ci même jour boobu moom Macky Sall ñoo julleendoo timis mu Macky jiite ko timis moom mu jiite Macky gee iti Idi lan moo ko dal ba fan yi mu yekk Ablaye Wade lu mel ni musiba di beneen comportement bu Sénégalais yi miinul aussi donc yooyu jeu boobu yëpp boo ko dajalee dañ koy naan gis nga sax am xam-xam kenn werante wu ko sa mën a politique kenn werante wu ko sa mën a lijjanti xaalis moo ni parce que nag bul fàtte Birahim boo defee communication nga décortiquer discours Idriss Seck mooy bi mu njëkkee def point de presse bi da nga xam ne Idi. àddunaam nag loo ko mën di xañ. bu ko xañ poño ku bëgg xaalis la. Hmm. ku bëgg xaalis la. pourtant même njàngam daf ci jiital chercher xaalis bari na ci de waaw chercher xaalis ci xaalis boobu mu jàng xam ni ñu koy wute xam ni ñu koy dencee xam ni ñu koy sàkkale pexe xam yépp ci la waxe moom ni Abdoulaye Wade mi ka tuumaaloon ci jalgati boobu jant bi euh, fenk ëllëg yomal xiyaam kenn du mën a génne li Abdoulaye Wade li ko Abdoulaye Wade tuumaal d'accord hmm. mais Idi Idi pourquoi ñi nekk victime yépp ci dossier 2006 bi nekk ay victime moom set na killing na d'accord mais lan moo tax ñi nekk ay victime yépp ci dossier boobu ay ñoom barataal ay ñoom ñeneen ñaata nit ñoo nekk victime ci problème mu chantier Thiès yi bu fekkee moom nee na kenn mënu koo taqal d'accord mais ñi takk ba nekk ay victime bari nañ c'est-à-dire diggante 2006 ak léegi fàtte xaju fi damle Idriss Seck du chef de l'opposition loolu na leer parce que statut boobu sax amul dañ ko doon xëccoo ñoom rek mais saxagul ba léegi Macky Sall li tax mu traîné woon lépp yëpp ba nga xamante ni bëggul woon gaaw a saxal loolu noonu xëy na moom moo xam lan moo tax euh, beneen bi ci des mooy lan moo tiital Karim Wade euh, lan moo tiital Idrissa Seck ba muy attaqué Abdoulaye Wade jamono ji ñuy wax ni Karim bindu na stambul Karim Wade wër na senegal ñu ngi dégmal vers amnistie euh, Khalifa Sall mm-hmm. donc am na lu ko jaxase mm. am na lu ko jaxase euh, sortem bi coïncide lool <laughs> gars yi dañuy nax quoi <laughs> Assane Gueye Assane Gueye non jox la càlla Assane Gueye émission bi PAD la PAD mooy prêt à diffuser dañ ko enregistré ba noppi pale léegi léegi Mansour Assane dinañ ci yow boobu def benn kii bu ndaw détaillé wu ma boobu de non détaillé wu ma boobu uh-huh. PAD la cest à mooy enregistré wuñu ko moment bi muy jàlle mhm. et ci bi koy enregistré càlla mhm. Sall tontu na Idrissa Seck te boobu waxagul Macky Sall mhm. tontu na Idrissa te boobu Idi waxagul Idi daa xëy ci ngoon gi mu de presse Assane Gueye bi muy enregistré Macky Sall bi ñu koy annoncé ñoom bi ñu koy annoncé ñoom waa Futurs Médias boobu jullee guñ donc ki waxagul noo ko mën a tontoo tontu bi coïncide lool ak ak wax bi ñun dañuy xalaat nag gis nga li ñu bëgg nii ñun changement bu ànd ak comportement comme ni ko Cheikh waxee sànq boo defal film film bi xawma kañ lay jeex quoi. non président élection yi voilà film film bi xawma kañ lay jeex. est-ce que doo doon commencé Mansour Birahim euh, mu nekk euh, sortie boo xam ne bu Idrissa Seck niñ ci mën a.